jaa ngeen jëf mbokki internet yi ñuy bàyyi xel fii si Jokko TV ñoo ngi am mbégte ak contentement di ànd ak yéen saa su ne bu dee gan nga si seen bi maa ngi lay invité à ce que nga abone te nga bës kolos bi ngir nga mën a jot les notifications en temps réel diwaan bu kaw la que deret daal di fay tuuru si diggante ñaar yi doon ànd bi coow li amee rumeur yu bare daal di nay judd naam rey am na waaye mbir mi demeewul noonu ndax ñu bari si Sénégal yi dañu jàppoon ni xale bu jigéen bi moom moo rey copain waaye ki xamante ni moom mooy magu xale bu jigéen bi moo rey waa ji lu tax mu rey ka nag nag d'après ay information yi leen Jokko TV indi ñoom ñaar dañu mës a nekk si ay problème problème yooyu nag tax xale bu góor bi dugg seen kër ngir doxaan rakkam bi mu ko doxaanee chaque jour waa ji topp ko bàyyil sama rakk di ko envoyé ay message whatsapp di ko woo téléphone bul tegati tàgg suñu kër sénégalais yu bare taxaw mu nekk mbir mu doy waar lool